ñu fas yéene waxtaane lépp lu soxal actualité bi ak kile euh, di Senghane Senghor ñu koy nuyu di ko jàmm. merci euh, madame maa ngi lay fay di la sant bu baax le remercier aussi ci invitation bi di nuyu sa auditeurs yi ñëpp ñu ñuy déglu di ñaan aussi li ñuy wax fii yàlla na ci yàlla def njëriñ pour Sénégal ak pour ñi ñuy déglu yëpp voilà euh, Senghane Senghor kon ñu lay remercier ci sa disponibilité laaj bu njëkk bu lay laaj euh, moom mooy tey jii ban jàngat nga def ci euh, tolluwaayu àq ak yelleefu doomu aadama fii ci senegal merci pour pour question bi mm, àq ak doomu aadama fii ci Sénégal nag buñ mënee wax ne nasax na trop. na sax na parce que peut-être dañ ci aborder ñaari type de droit rek mooy yi ñuy wax droit civil et politique nga xam yooyu moo am droit à la manifestation fa nga koy fekk droit à la vie droit à la nationalité et autres buñ analyser ñaar yooyu d'abord danañ wax parce que loolu lu ñëpp dégg la mm-hmm. liberté manifester Sénégal def ci regresser trop parce que jàppoon nañ ne droit boo xam ne jot nañ ci la ba duñ ci dellooti gannaaw mais buñ seetloo li fiy xew at yu mujj yi yëpp mooy yi ëpp ci manifestation yi ñaxtu face à ni ñuy gouverner en général dañ leen di tere et quelquefois bu ñu leen teree ay violence def ciy topp parce que bu tere yi teglantoo en général ñi koy def dañuy wax dañuy marche par force et après mu mu andi ay ay. kon yéen ngeen gis ni ci côté manifestation dafa am ay dafa am un recul. dafa am dafa am un grand recul ci côté manifestation mm-hmm. dellu gannaaw aussi ci leneen oh. mooy respect droit à la vie mooy nit dafa am droit dundam ñu sàmmal ko ko et bu bu bu sàmm dund boobu amee ay rëq-rëq yu mel ni ñu faat ko ci manifestation ak anam bu mënti nekk mm-hmm. état bi dafa am obligation mu leeral ko te loolu it gis nañ ne dafa sooxe mm-hmm. exemple yi ñu ciy joxe mooy li fi xew mars 2020. affaire Mancabou ngay wax wala. no avant affaire Mancabou bu a d' abord li fi xew manifestation. affaire Adji Sarr Sonko affaire Adji Sarr Sonko. yaa li xew Bignona affaire Mancabou ñëw Cheikh Niass et d' autres cas yu fi am yoo xam ne ay ay moor yu suspect lay nekk te après duñ ci am suite suite bu leer. Hmm. te loolu mu ngi xaw bari ci Sénégal loo recul. ci mbiri ak ak yelleef doomu aadama gënu koo rëy alors ci beneen côté droit bi buñ ko analyser mooy droit socio-économique et culturel droit yooyu aussi seetlu nañ ne d'abord dañ génn situation Covid bu xaw a compliqué trop ci population yi mais ensuite ay ay pénurie ay cherté de la vie ak yu bari daal yokku ci yoo xam ne daanaka dafa impacté nit ñi ni ñuy dundee te loolu it ay àq ak yelleef yoo xam ne certes mënuñoo mën nañoo gis ne état bi def na ci ay effort mais terewul ñu wax ko ne sénégalais yi sonn nañ sénégalais yi ñun ci ciy souffrir parce que nit bu amul koom wala li nga doon am wàññeeku sa wér-gu-yaram na cee sooxee parce que sa droit à l'alimentation day affecté ak yeneen droit yu bari yoo xam ne santé éducation et ainsi de suite def ci dal di mën a tegu loolu daal moo tax buñ buñ ko analyser noonu daal ñu ne daal droit de l'homme yi laaj na gën a góor góorlu parce que fii ci Sénégal na sax na fi trop recul yi ci amit bari na mais ci ci ci régime wu Macky Sall depuis 2012 ba léegi euh, ban mbir ngeen gis ni régime bi def na ko euh, mu nekk avancé wala acquis si wàllum euh, àq ak yelleefu doomu aadama avec le régime de Sall peut-être li ñu mën a remarquer ci ci lu mu def ci àq ak yelleef doomu aadama mooy indi na fi secrétariat d'État aux aux droits humains yokk ko ci ministère bi muy en réalité benn ministère la sax bu buñ ko mënee tuddee noonu boo xam ne institution bu yokku la mais dans les faits dans la pratique yëguñ un peu ko ci ci ci évolution droit yi yeneen yi lu mel ni comité sénégalais des droits de l'homme ak yooyu ay rëq-rëq moo fa amoon ci loi beeg doxalin beeg yooyu amul avancé parce que ba léegi nanguwul soppi loi bi et ainsi de suite Euh, tey jii naka nga gisee arrestation bu bu Cheikh Oumar Diagne ak tamit euh, bu Abdou Karim Gueye bi nga xam ni dañu évoqué euh, décès wu imam Alioune Badara ndaw ki ñu fi jàppoon imam boobule doon ko topp ci wàllum terrorisme ñëpp xam nañ ko ñoom nag ñu génn ni faatoom loxo njiitu réew mi mi ngi si ñu jël si leen ba actuellement ñi ngi si loxol yoon est-ce que yenn waa RADDHO jàpp ngeen ni mbir mi ni mu demee dëppoo na ak àq ak yelleefu doomu aadama surtout surtout arrestation damay wax d'abord dans le cadre général. Mm-hmm. avant que ñuy dem ci cadre particulier boobu. Mm-hmm. mooy arrestation. ou bien ñu convoquer la police wala gendarmerie pour déglu la lu mm-hmm. normal la ci république. parce am na loo xam bu ko nit waxee war nañ ko mën a woo laaj ko fu mu tegu. maintenant li ciy tegu mooy ñun li ñuy ñaawlu di ko dénoncer tout le temps. mooy yomb gi ñuy yebal nit ñi ñu koy dem kaso. ça ça quoi. ça veut que Abdou Karim Gueye moom nga wax ak Cheikh Omar Diagne même bu fekkee dañu wax luñ jàpp ne war nañ leen déglu mais waroon nañ leen mën a déglu bu jeexee ñu bàyyi leen ñu dem seen kër parce que fii détention exception la war a nekk loolu mooy mooy texte yi aussi maintenant arrestation <coughs> moom lañ mujj def règle bi alors que waruloon nekk règle bi ce qui fait que aujourd'hui chacun s'attend à ce que ñu def leen mandat de dépôt comme ça se passe toujours et loolu aussi gënul parce que nit bu amee garantie de représentativité li mu wax noonu nañ ko laaj ñu firndeel ko ensuite bu ko mënul wala li mu joxe doyul nañ ko yóbbu ci kanamu juge bi mu mu mu àtte ko maintenant bu ko ne mu dem purger penam c'est aussi simple que ça mais mais très souvent ni muy doxee da ngay xaw a gis ni un peu peut-être xam intention métital genre sanctionné peut-être pour décourager ñeneen ñu wax de toute façon li leer mooy Sénégal réewu liberté la nit ñi dinañ continuer di wax seen xalaat a ah, buñ ko waxee bu laajee yoon woo leen pour laaj leen nañ leen laaj te bàyyi leen ñu dem ñibbi mais mais est-ce que gisoo ni tamit euh, c'est vrai démocratie liberté d'expression liberté de manifester mais gisoo ne parfois yenn activistes yi euh, li ñuy def dafa ëpp parce que naka ngay euh, toogee peut-être di jiiñ njiitu réew ne moo faat tele personne te peut-être amuñ si sax ay preuves mais lu dul seen xalaat la nii rek comme ça. ah mën a gu ñoo wax amuñ ci preuve parce que ñu ngi leen di di di enquête ñoom ñi ko avancé. xëy na dinañ teg dara ci loxo enquête kat yi. Mhm. maintenant est-ce que ñooñ ci camp yi activistes yi lañ leen di ranger wala dañu leen di ranger ci camp yi ñuy def politique. parce que c'est ça aussi la grande question c'est souvent des gens qui flirtent avec les ñi nekk di def politique. Mhm. et que très souvent seen déclaration yi dañ koy mën a ranger ci cadre boobu. c'est c'est c'est juste parce que c'est des gens lu tax ma wax loolu mooy c'est des gens yoo xam dañ nekk dans une opposition systématique contre le pouvoir. xëy na aussi pouvoir bi moo leen braqué ba seen diggante demee noonu. Hmm. donc pour man jàpp ma ne activisme la. parce que mais mais yow jàppoo ni euh, est-ce que dëppoo na sax ak liberté euh, peut-être démocratie est-ce que en tant que droit de l'hommiste yow jàpp nga ni c'est normal euh, nit nekk ci benn réew jékki-jékki ak njiitu réew institution bu mu doon nga nga jiiñ ko ne dafa faat nit est-ce que jàpp nga ni c'est normal dans un pays de droit. mais c' est juste c' est parce que nit ñu forger la. Mm-hmm. état bi suñ texte yi nekk. article quatre vingt ak yi ko wër. mais yow seetaan nga fi télé. Mm-hmm. ab sitoyen mbéj président. Mm-hmm. gis nga ko wala gisoo ko. pourtant reyuñ ko. toroxaluñ ko. dañ ko jàpp yóbbu ko ci procureur. mu def ko su mandat de dépôt mu ñëw ñu àtte ko mu purger penam après mu génn dem doxi soxlaa mi c' est aussi simple que sax peut-être que même. buñ ci teggi woon diisal yiñ ci diisal yooyu déclaration yu mel ni yi ngay wax yëpp dina dëñ dinañ ko bàyyi hmm. c'est juste ça parce que ceux qui le font ils se que ma ko waxee nañ ma topp naa ci am buzz peut-être une sanction qui na sera pas lourde et après je vais et je vais être connu parce que hmm. am na ci ñoo xam ne aussi ci loolu lañ jëlee notoriété hmm. dëgg la woon leen xamee ci lañ ci lañ leen xamee. damay attaqué njiitu réew mi comme ça ñëpp dinañ wax si man. comme on di ku bëgg a siiw. da mm. ngay attaqué ku siiw. e ñu xam la. ça peut waxuma loolu la mais ça peut aussi être ça. et donc aussi la police et la gendarmerie. Mm. mënuñ leen orienter rek seen liggéey nekk topp ñooñu. parce que am na yoo xam ne ci réew pour mieux régler sa pense que il faut faire la sourde oreille am na yoo xam jarul jarul jox benn importance bi. parce que dafay tardeel ñi ñi ñi ngi ciy liggéeyloo alors que am nañ lu gënoon a ñor loolu lu ñu waroon a def. est-ce que Rado yéen euh, d' accord ngeen ci article quatre-vingt wala ci suppression offense au chef de l'État Rado d' accord na si ba léegi waaw wala déet. non article quatre-vingt. Mm. il faut dire que même état bi dafa nekkoon ci logique yi dindi ko. Mm. président Abdoulaye Wade daf fi entamé woon benn réforme code pénal ak code de procédure pénale boo xam ne depuis 2009 la woon et que yenn ñu bari fii société civile bi yenn avocat yi yenn magistrat yi yenn professeur d'université yu ma la mën a limal dañ ci liggéey liggéeyoon ñu liggéey texte bi ba mu pare ba 2018 état Sénégal présenté ko benn organe Nations Unies bu tudd comité contre la torture ne leen voilà les ñaari textes yu bees yi nga xam ne moom la ñu war a dem voter assemblée nationale Sénégal pour que article quatre-vingt boobu dafa waroon déñ ak yeneen article yu bari yu yu nekk ci code bi yoo xam ne dëppootul ak ak ak ak yelleef doomu aadama ça veut dire c'est des ay tex yu war a yeesal lañ parce que textes yu daté de mille neuf cent soixante lañ ah on ne sait pas fan la yëf fi jaar du façon dañoo xëy réforme bi ñu classé ko classé ko parce que dañ cee jukki texte yi leen arrangé parce que am na texte yu ñu fiy faral di voter léeg-léeg pour régler telle et telle situation foofa lañ koy jëlee li des ci texte yi ñu classé ko tegee ko de côté et d'après parce que man laaj naa ci enquête naa ci information yi ñu ma wax dañ ma ne réforme bi sax dañ ko far abandonné et ça d'abord gâchis la parce que mobiliser nañ ci ay compétences pendant des années mm. def ci xaalis parce que loolu plusieurs ateliers du travail lay nekk énergie ak leneen ak leneen et ensuite ñu ranger ko aux oubliettes saa aussi il faut ñu def ko ci actif yi régime président Sall kon kon kon ci gàttal képp kuy yëngu ci mbir àq ak yelleef doomu aadama xam nga ne article quatre-vingt dëppootul ak jamono voilà Senghane euh, ñu laaj la beneen euh, sujet d'actualité des scandales yi nga xamante ni euh, mooy am ci hôpitaux yi maanaam yéen nit yi nga xam dañuy faatu ñu jàpp ni médecin yi fa nekkoon infirmier yi wala ainsi de suite defuñ seen liggéey nañ ko war a defee ba nit ki daal di ñàkk bakkanam gis nga li amoon Louga coowal astu soxna jeexagul sax gis nga temps yi bi am di Doura jàlloo mu nekk sujet actualité boo xam ni ça revient tout le temps du négligence bi askan wi di wax ci hôpitaux yi Rado lan la si xalaat. waa parce que euh, ñu dolli ci sax li li am aussi Tivaouane. Mhm. parce que ba tey ci hôpitaux yi la xewee. Ah. parce que euh, liy dëgg aussi neexul wax xëy na du neex soignants yi. Mhm. mooy suñu hôpitaux yi quelque part problème yu bari la teg citoyens yi. dee gi bari na ci ñàkk toppitoo bi bari na ci daanaka sénégalais boo jël rek mën na la nettali benn histoire boo xam ne ci hôpital la ko dabee mbaa mu dabee fa mbokkam ba mujjee ci yu demee noonu et loolu war na war na dëñ parce que ñoom seen seen devise buñ leen di former liñ leen di njëkk a wax mooy d'abord faut pas nuire loolu mooy seen devise devise donc ñoom dañoo ñëw pour faj pour améliorer pour dindi métit mais du pour ñuy ñu ñu ñuy yokk métit wala ñuy andi situation yoo xam ne sax nit ku faatu def cay juddoo mm. et li ci gën a métti nag mooy fi mu ne dafa mel ni ñoom aussi dañoo commencé bëgg seen responsabilité kenn du ko mën engagé wala ñu engagé ko ci mm. façon bu jafe bu bu bu bu situation yooyu amee te ma fàttali ne euh, ñiy liggéey ci hôpitaux yi surtout médecins yi et autres mais am nañ déjà une garantie textuelle parce que ñoom obligation de moyens lañ am amuñ obligation de résultat. maanaam. mooy loolu li mu tekki mooy. war nañoo def moyens yi ñu am yëpp pour saafara nit ki mais yoon tegu leen par force ne da ngeen war a faj nit ki loolu doy na sëkk comme garantie parce que bu problème amee ñoom la ñuy prouver mooy li ma waroon a def man. def naa ko loolu lañ leen di laaj ñu prouver mais buñ bëggee aussi ne. duñ leen mettre face à leur responsabilité alors que chauffeur bi bu faatee nit ñu yóbbu ko ate ko ndax loolu bu ko menuisier bi defee mécanicien bi militaire bi policier bi ku mën ci doon ci société bi boo defee faute ñu ne la ñëwal nga répondre ci mais loolu ñoom mënuñ cee échapper loolu d'ailleurs mooy seule garantie bi citoyen yi am pour que dérive yi mën a wàññeeku ci hôpitaux yi parce que aussi même même faute hôpital il faut que ñu xam ne ñaari type de faute mën na cee am mën nga def foot boo xam ne sa faute bopp la ñu topp la ci mm. mais mën nga def foot boo xam ne mënuñ la cee topp hôpital bi la ñuy topp et yooyu yëpp ay garantie yoo xam ne la ñun jàppuñ ne war nañoo mën a am garantie yu ëpp yooyu parce que dégg nañ médecins yi naan ñoom kenn dootu leen tëj tëjoon am na ñu jàppoon ci affaire Astou soxna ñu manifester manifester bañ libérer leen hôpital pratiquement bu Tivaouane euh, c'est la même chose ñu gisaat euh, bërki démb ci affaire euh, Doura Diallo Kédougou ñi ñu tegoon loxo ñett ñi libérer nañ leen est-ce que ba ñoom sax ñuy dem naan ñoom nangootuñu tëdd kaso bay laaj un tribunal des pairs voilà non ñoom mënuñoo wax duñ tëdd kaso ou pas ah. dégg naa sax yiñ ci wax ak yi ñu ci wax procureur mm-hmm. Mm-hmm. mais procureur du médecin ça veut dire dans ces cas ci cas yu mel noonu procureur buy bu bu bëggee xam yenn yi il est obligé mu commettre un expert boo xam ne moom mooy ñëw andil ko ay information yu leer man kon ñun mënuñ comprendre affaire bi am procureur commencé enquête am ñu commencé grève mm-hmm. amul aussi sens parce c'est comme si bugguñu mu leer hmm. wala c'est comme si chacun ku nekk ci ñoom il se dit naa ci jàpp parce que demain mën naa nekk ci situation bi hmm. loolu corporatisme la tudd hmm. alors que domaine boobu du domaine bu corporatisme mën a am du domaine bu ay ab yi war a mën a am parce que médecins yi aussi il faut ñu delloo ci seen xel un peu que ñoom médecin ak juge ñiy àtte ñooñu seen seen liggéey ci société dafa xaw a spécifique. Hmm. parce que d' abord ay experts lañ yoo xam ne très souvent dañuy liggéey ci ay nit ñu vulnérable booy liggéey ci ay nit ñu vulnérable dafa am comportement boo xam ne moom nga war a am. Hmm. dafa am yëg-yëg boo xam ne moom nga war a def parce que médecine du fu ñuy utee xaalis du leneen d' abord jaamu yàlla la loolu il faut que ñoom ñu fàttaliku ko. ça c'est vraiment important. et que yu mel noonu bu amatee ñu on aurait compris ñu demoon ñu topp procédure bi ba àtte am. Mm-hmm. peut-être waaw affaire yi leer ñu gis ne d'accorduñ mais mën nañoo def appel buñ d'accordul mën nañoo dem cour suprême maintenant au sortir de ça. mais ñu téye kenn du ñu déglu kenn ñu juger. ça n'a pas de loolu état bi def ci war a jël nag responsabilité bu mot sëkk. Mm-hmm. parce que grève aussi loi bi def ko encadré. nga war a def préavis. ainsi de suite et puis jour yi nga grève waruñ la koo fay parce que mënoo di grève aussi boo ñëwee fekk sa salaire intact mm-hmm. ça ak même d' autres moyens yu état bi am pour contraindre ñenn ñi ci ñoom ñu ñu ñu ñu liggéey. mais est ce que yow d' accord nga si grève médecin parce que ñoom secteur bi ñu nekk bokkul ak yeneen secteur c' est tellement sensible parce que affaire Kédougou bi mu amee euh, ñu def grève sax nee nañ ci fan yooyu am na pratiquement ñaari bébé yu ñu doon évacuer ñu ñàkk seen bakkan est ce que yow euh, bokk nga si ñuy wax ni médecin warul grève. c'est que médecin warul grève xaw aay leen grève dafay xaw compliqué parce que li tax mooy ay convention internationale yu Sénégal engagé wu te mu couvrir leen moom moo leen di jox droit yooyu parce que moom laa la doon wax sànq ne dañ ko encadrer ça veut dire ñoom mën nañoo dem grève mais état bi dafay dese yor droit de réquisition mm-hmm. mooy situation bi bu ko laajee mën na la requérir par force nga ñëw liggéey si mm-hmm. et que boo ko deful mën nañ la ci poursuivre loolu aussi il faut que état bi xool nan la koy mën a régler ak ñoom parce que grève tekkiwul dañuy tëj hôpitaux yi. Mm-hmm. et j'ai ni ma gisee ñuy defee mbir mi noonu la xaw a demee. te et ça c'est c'est c'est c'est plus que grave c'est même criminel. parce que mm-hmm. bu buñ demee ñoom bay lim naan wuy deux jours yiñ tëj ñu ne dégg nañ euh, ñoo dañoo tëj tel tel service deux jours yiñ tëj tel service fonctionné wul on a évacué tant de personnes parce que non ça c'est pas loolu baaxul loolu defarul dëkk bi mais euh, pour yow Sadikh Niass naka la euh, plutôt sax maa ngi juum euh, Senghane Senghor naka la ñu mën a euh, revaloriser li nga xam ne moom mooy système sanitaire bi defaraat ko parce que euh, c'est vrai ñu ngi leen di accuser euh, de négligence mais xam nañ ni lim bi doyul limi médecin yi doyul infirmier ainsi de suite plateau médical bi tamit taxu ko demee noonu amuñ ay jumtukaay pour def liggéey bi ñu war a def tey jii en tant que militant des droits humains lan ngeen ngeen di suggérer pour mën a defaraat li nga xamante ni mooy système sanitaire bi médecin yi ak ñu nekk ci corps médical bi mën a gis seen bopp si seen liggéey mais tamit euh, sénégalais bu ñu feebaree dem hôpital yu ni mel ñu mën ko moytu. waaw y a y plusieurs mm, am na plusieurs points ci li nga soulever. Mm-hmm. c'est vrai que médecin yi doyul moyens yi des na mais pour nga defar un bon système sanitaire dafay commencer d'abord par la formation mm-hmm. mais ensuite état bi def ci moyens yi mu laaj mais l'autre revers aussi de la médaille mooy am na lu nekk ci gannaaw loo xam ne souvent dañ koy perdre de vue te dafay dafay dafay am jeexital ci médecins yi li ñuy def ak système sanitaire bi mooy clinique yi ñuy ubbi ñoom derrière nga xam ñoom ñi nekk dans le publique ñoom ñooy dem ubbi ko mm-hmm. wala ñu nekk di fa officier et que souvent même seen yenn malade yu bari foofu la ñuy mm, dem fekk leen mm. et ça defa ah am na fu muy toll dañ koy mën a analyser comme rupture d'égalité entre les citoyens parce que citoyen bi am xaalis am mm. yenn moyens yi moom bu ñëwee clinique lañ koy yóbbu on le reçoit à temps ñu defal ko li war yëpp à temps parce mën na fay mais sénégalais lambda bi amul moyen yooyu le plus souvent day ñëw xaar ci hôpitaux yi ba sonn te gis médecin jafe ko. Mm. donc c'est vrai que lim bi doyul. comme dans les autres secteurs boo laajoon magistrat yi dañ lay wax lim bi doyul greffier yi boo leen laajoon dañ lay wax lim bi doyul professeur d'université yi lim bi doyul et ainsi de suite donc nous sommes un jeune pays réew mu mu mu xaw a euh, yàggut trop la bi ñu bi Sénégal amee indépendance ak léegi ñu war a tabax lu bari na état bi def ay effort mais nit ñi aussi quelque fois ñuy fàttaliku ne ñoom ay citoyen lañ parce que loolu def ci am solo. Mm. Euh, voilà te beneen euh, question tamit euh, du dugg si wàllum politique un peu di question wu troisième mandat fii si Sénégal gis nga ni débat bi ça revient tout le temps récemment rek njiitu réew mi tukki na dem pays ba ñu posé ko question bi foofu ba léegi neewul waaw neewul déet mais nee na tamit du bokk si ñi nga xam ne dañuy yàq démocratie bi fii ci Sénégal est-ce que ban jàngal nga am ci wàllum troisième mandat parce jamono boo xam ne jàpp nañ ni deux ans wala mëtatu ko sax moo des ci nguuru Macky Sall ba léegi xamuñ ba xam dafay postuler euh, pour euh, beneen candidature waaw wala déet. maanaam li ma lay njëkk a wax mooy ñi ñiy jàngat. Mm-hmm. mbirum ëmp fonction. Mm-hmm. am na ci ay étude ay xeltu. et sax yoo xam ne ñu mel ni professeur Ablaye Bathily bi ñuy xeex Ablaye fii question yu ñu yàggoon di rappeler la. ñoom dañoo wax bu yàgg ñu ne fonction boo ci defee fukki at amatoo dara looy prouver lu bees. Hmm. li nga xamoon yëpp mën ko andi nga ko. Hmm. dangaa war a dem bàyyi keneen siège bi. loolu d'abord mooy li may njëkk a tontu liir naa li président wax mais pour man wax ñu lu leer moo gënoon ci moom moo gën ci ñun gën ci Sénégal parce que président la mu waxoon mënut ci ñàkk a dellu. bu leen fàttee ne président dafa organiser woon fii référendum en 2016 boo xam ne pour régler question boobu moom moo taxoon mu jóg mu def ci alali Sénégal mobiliser nit ñi mobiliser ay juris ci gën a éminent di nga xam moom la tegoon ci kanam muy professeur Ismaïla Madior Fall mu wax fu ne ne président mënul de laaj beneen mandat après 2019 moom président mu wax ko premier ministre am wax ko ministre de la justice am wax ko te moom waxu ko benn yoon wax ko wax yu dul jeex bind ko ci livre mm-hmm. mais mënuñoo dem ba tey ay ñoo xam ne xëy na yaakaar nañ ne post yi ñu bu président Macky Sall demee dañ fay jóg et que peut-être amuñ compétence yuñ demee feneen mm-hmm. bëgg ko dar naan ko génnal ci engagement yi nga jëloon loolu kenn mënu ko nangu mm-hmm. duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg et président bu mu fàttee ne sénégalais yi la amal affaire parce sur ça dama koy ñaan na dégluwaat discours bi président Abdoulaye Wade njëkkoon def bi mu perte pouvoir. Mhm. parce que bi mu perte pouvoir toog na lu yàgg waxul mu ngi njëkk a waxee CICES na dégluwaat la fa président Abdoulaye Wade waxoon ci Sénégalais yi. Mhm. bu ko dégloo peut-être que dana delloo si xelam parce que. ñun gisuma ñu may ko loo xam ne mayuñ ko woon président Abdoulaye Wade dama xamul sax lan moo tax ñu war ko koo may te ñun duñ aussi ñoo xam ne dañ ñuy forcer ne lii mooy war c'est est-ce jàpp nga ni sénégalais yi pare nañ pour def beneen soulèvement pour euh, en cas bu Macky ne dafay sampaat ndëndëm pour une troisième fois. man jàpp naa ne du yegg sax ci soulèvement man jusqu'à preuve du contraire jàpp naa ne président dana waxtaanaat ak xelam. ñi ko je jege wax ak moom pour que mu xool beneen solution bu muy def xam nga ambiance yi troisième mandat bi ñuy wax nii. Mm-hmm. waxuñ ci lu leer. xam nga lan lay parasiter Sénégal. Mm-hmm. xam nga li important ci démocratie bu ñu limité mandat yi. mooy que toujours le président en réalité ci dernier mandat bi lay nekk un vrai président. Mm-hmm. parce que foofu day fekk liggéeyatul pour beneen mandat yenn contraintes yi ak yenn pression yi entourage am duñ ko ko tegati. Mm-hmm. dafay def réforme yi mu war a def yépp pour le bien. terminer en terminer en beauté génn par la grande porte moderne. alors mais aujourd'hui moom la débat est tellement parasité que amul lisibilité mm-hmm. kenn un xamul fan la jëm tey mu wax lii suba ñi ko war a wax lale plus tous les signaux yi mu envoyé parce que bu fekkee ku wax en faveur du troisième mandat kenn du la wax dara mais ku wax contre le troisième mandat ñu limogé la saa mm-hmm. aussi ñun ay borom xel lañ dañu réfléchir mais ñu ngi koy xaar ba mu déclarer ne moom troisième candidature def ko yóbbu conseil constitutionnel. Mm. et même ceux dégg naa ci ci ci partisan yi ñu naan non am na droit dem conseil constitutionnel bu demee peut-être bu ko conseil ne mu dem mu dem bu ko non même loolu warul. Mm. c'est-à-dire que ñi war a dem conseil constitutionnel déposé ci. du du Macky Sall bokku ci ci am na sénégalais yu munul dem pour d'autres raisons. mais moom munul dem parce que moom dafa épuiser a cartouches am. Euh, mhm. kon dossier am vraiment. nañ ñu dimbale bàyyi ñoo wax waxi am na droit déposer ko conseil ñu ñu gis ni bi mu nommé euh, Badio Camara moom mooy euh, le nouveau président du conseil constitutionnel gis nga coow li bari na euh, am na ñuy wax ni sax Badio Camara taalibe Macky Sall la lu ko Macky Sall du wax moom lay def opposition bi nag bi ñu ko nommé jàpp na ni kii moo war a daganal valide troisième candidature bu maitre bu Macky Sall yéen naka ngeen gisee nomination bu Badio Badio Camara non je pense que ça aussi si ay position yu extrême lañ mm. parce que Badio kamara magistrat bu mag la parce que magistrat bu demee ba jiite cour suprême ñi nekk magistrat yàlla may leen loolu bariwul mm. kon ça veut dire que am na benn xeriñ goo xam ne am na ko def tout une carrière te man jàpp naa ne Badio Camara ba muy nekk magistrat xamuloon mag Sall peut-être seen parcours ñoom ñoo tase maintenant Badio Camara def fi fekk un système mis bu ñu teg en place boo xam ne moom def ci xaw a un peu bénéficier te muy un système qu'il faut changer parce que wax bi du baajo Camara Badio Camara moom rek nekkul conseil constitutionnel yeneen magistrat ñu nga fa yoo xam ne ay magistrat d'égale dignité lañ même bu fekkee moom mooy président bi et foofu voix am fi mu mën a amee solo rek mooy bu ñu demoon bi mu am voix égalité de voix peut-être voix am dafay prépondérante. Mm-hmm. mais le problème mooy conseil bi moo feebar. Mm-hmm. Macky Sall xam ko. parce que diagnostic bi moom amoon na ko avant muy ñëw au pouvoir moo tax d'ailleurs bi mu ñëwee liggéey bi mu santoon CNRI CNRI defaloon na ko ci ay proposition topp ko. Ismaïla Madior Fall mi ko doon xelal. defoon ko ministre de la justice. Mhm. dafa bind lu bari avant Macky Sall di ñëw au pouvoir ci conseil constitutionnel moom ci boppam dafa yàgg wax mu ne conseil bi dañ ko war a soppi def ko cour constitutionnel. Mhm. théoriser na fi ba théoriser fi ne. professeur de lettres bu def ñaari législature war nañ ko mën a nommer membre conseil constitutionnel pour diir que du affaire yi juriste rek du affaire yi magistrat kese. Mhm. parce que conseil constitutionnel kuur kuur lañ ko war a def boo xam ne hmm. dafa war a ubbeeku ba yegg sax ci di saytu yenn question droit de l'homme yi hmm. et c'est pourquoi société civile am fa place euh, avocat yi <laughs> yi sax mën nañ fa dugg hmm. yeneen type de d'intellectuel war fa mën a dugg et ainsi de suite mais aujourd'hui ni muy doxee mooy euh, xam nga def ci am loo xam ne est-ce que xam nga madame ne conseil constitutionnel. Mm-hmm. ñi fa nekk ñëpp nekk juge constitutionnaliste amu ci. constitutionnaliste. waaw mooy koo xam ne. xam-xam dafa màcc ci wàllum. waaw xam dafa màcc ci wàllum constitution. te day ay magistrat lañ. mais. Mm. parce que constitutionnaliste. mooy koo xam dafa spécialisé wu. moom mm. moom moom ci loolu la spécialisé wu. ba am yenn niveau yi di ko jàngale. ñooñu en général ñoom ñoo mën a xelaat. ñooy dem ci yenn débat yi ci constitution ak mën cee andi benn xam-xam bi. Mm-hmm. amul foofu ci ñoom. ñi fa nekk ay magistrat lañ certes magistrat yu baax lañ parce que xam nañ seeni parcours benn IGE ak un professeur d'université mm-hmm. euh, le le le le vice-président professeur d'université la mais du constitutionnaliste professeur de droit international la te loolu aussi dafa problème parce que constitutionnaliste ñàkkul Sénégal bari na fi te loolu professeur El dem na léegi retraite mm. juriste yi mooy dégg xam nañ ko parce que jàngal nañu bari faculté de droit lum mu yàgg a la da doon wax con conseil constitutionnel nañ ko rendre constitutionnaliste yi mm-hmm. pourtant bi ñu ñëwee di defar loi bu bees ka jàngatoon conseil constitutionnel ba jàpp ne dañ ko war a soppi mais lu bari def ko reconduire moom moo andiwaat système bi ñu am nii mm-hmm. type de nomination bi ñu am et mu andi conseil bi feebar ba mu amoon mu continuer di ko am mu mel ni suñ homme politique yi souvent buñ nekkee dans l'opposition la ñuy am idée yu baax yu yu dëgër mais buñ ñëwee au pouvoir li leen arrangé la ñuy xool di ko doxal et loolu mooy li baaxul parce que loolu gënul trop ci démocratie dafay yàq démocratie. Mm. Mm. te souvent dañuy gis constitutionnaliste yi fii au Sénégal ñenn ñi dañuy génn ne président Sall am na droit laaj troisième candidature ñeneen ñi tamit génn ne amu si droit. tamit ça pose problème. non cons benn constitutionnaliste waxagu fi ne am na droit laaj. Mm. à moins que nga jox ma ci tur. parce que Ismaïla Madior. nga xam ne. ñoom duñ si si constitutionnaliste la moom moom constitutionnaliste la et je crois bu ma juumul ci ñi fi nekk en activité retraité wuñ moo ci gën a gradé fi ne. Mm-hmm. am na ñeneen mais ñeneen ñi dégguma. ñu wax ñu wax clairement ne am na droit def troisième mandat ay avocat ak yooyu laa. dégg waa ñu ciy werante <laughs> Ismaïla Madior mi nga xam moo nekkoon ci kanam yi réforme bi. Mm-hmm. dégg naa la mu waxoon. weddeegu ko ça veut dire c'est vrai nangootu cee wax mais weddeegu ko donc mu ngi toog di déglu kon gisuma keneen ku mën a wax lu wér lu fi am maintenant ñi koy wax dañoo espérer ne peut-être buñ ko waxee ba ñu autoriser ko mu déposer bu déposer peut-être waa conseil constitutionnel nangu ko. Mm-hmm. mais dépôt bi ci boppam moo warul. mooy mooy mooy fi ñu war a warul yegg sax mooy muy déposer. li li que man jàpp naa ne. Euh, moom ñi mu àndal ñëpp di def politique mais du moom kese moo fa mën li mu mën bu génnee normalement war na mën a am ku ko remplacer bu fekkee loolu amul on peut s'interroger ci moom ban type de leadership la doxal. la doxal ci biir parti bi. biir parti bi ak ak coalition bi même. Euh, ñu gis ni temps yi Ousmane Sonko euh, génn na def déclaration ne candidat la pour deux mille vingt quatre mais ci discours am nee na daanaka euh, nguur gi mi ngi si ay loxoom te bis bu toogee dina topp ñi nga xam ne dañu luubal alalu réew mi tëj leen loolu loo siy wax. Oh, bon loolu moom discours politique la boo xam daanaka jarul trop commenté. Mhm. c'est c'est discours bu récurrent la. Mhm. moom la Ablaye Wade doon def bi mu nekkee opposant mhm. Macky Sall moom la doon def bi mu nekkee opposant gis nga ko ba mu ñëwee moo tax mu réveillé woon CREI yi malheureusement CREI yi ay daamel nii réglé ay compte moo ko taxoon na andi. et Ousmane Sonko aussi daamel ni ci logique boobu moom la nekk di inscrire par contre li may wax ci déclaration. de candidature Ousmane Sonko bi mm-hmm. di ko wax ci bu gàkku mooy ñi déclaré gum yëpp ci ñoom ne candidat lañ c'est important loolu li mm-hmm. tax teel koo déclaré am solo lu tax mooy dangay may nit ñi ñu mën a teel a xam yow fan nga jëm ci man jàpp naa à partir de maintenant te loolu souvent dem lu may ñaxtu la parce que du lu may dégg yéen presse bi mm-hmm. jot na ngeen fexe am ay entretien ak ñoom ñi déclaré ne candidat lañ pour que ñoom ñu mën a ñun ñu mën a xam ñoom le système de santé là luñ ci xalaat. Mhm. politique internationale Sénégal bi. ñoom lan lañ ci xalaat. Mhm. agriculture lan lañ ci xalaat. réforme justice bi lan ak lan lañ ci xalaat. déjà ñoom ñu waxagum. voilà donc tous les domaines ñu mën cee ñoom débattre wane ay piste ñu xam. experts yi mën cee réfléchir ak ñi comprendre un peu système boobu am ci xam-xam ak expérience mën a réfléchir xam ne kii mu ngi ci yoon bi walla nekku ci parce que loolu rekk mooy lii tax suba. buñ demee di tànn hmm. ñu mën a tànn un boo xam ne candidat bu baax lay nekk bu gën ci Sénégal hmm. boo xam ne du tegu ci ay passion ak ay ay ay bëgg naa diw ak ay ay ay parce que loolu mooy fi mu ne lu ñu soxla waaw et et moom yéen war ngeen ci béy seen waar parce que ça seen liggéey la. d'accord idée bu baax la xam naa dinañ ko def ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale euh, tout la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal euh, Senghane Senghor bokk ci rencontre africaine pour la défense euh, des droits humains maanaam RADDHO kuréel gu yëngatu ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama fi ñu toll nii Senghane Senghor beneen problème am moom mooy yokkute dund gi bu njëkk ba sax dañ naan dund gi mais actuellement lépp daal di yokk tout tout tout inflation boo xam ni sax euh, sénégalais yi mënuñ comprendre lan moo ko waral même bu ñu évoquer la guerre en Ukraine même bu ñuy évoquer peut-être Covid 19 bi euh, ñu bëri ci sénégalais yi mënuñ comprendre lan moo waral subitement rek euh, pratiquement prix yëpp daal di grimper ci anam boo xam ni sax mënatuñ ko dékku yéen en tant que militant des droits humains lan ngeen ci xalaat. waaw parce il faut d'abord que ñu préciser ne yokk prix yi mooy situation économique bu métti bi am hmm. daanaka defar daj àdduna fi ne hmm. plusieurs facteurs ñoo ko waral covid bi ñu génn ci la hmm. inflation bi am ci yenn réew yu mag yi et ensuite guerre yi Ukraine bi ñëw yokk ko mais fekk aussi yeneen facteurs yu amoon suñ biir ñun nekk ci parce que ñun en réalité dañ dul dafa yërmande bi suñ diggante dafa xaw a des. Mhm. c'est exactement et loolu mooy xew bu tabaski jubsee wala leneen ñu ne tel denrée amul. bu xasee manqué ci benn marché. Mhm. mais ñeneen ñi dañ ko yokk. et systématiquement mu nekk ay flambée prix yoo xam ne parce que fi mu ne marché bi da nga ciy dugg souvent. Mhm. Euh, ñu ñu ñu wax la yenn prix denrée yi. nga ne nga def remarque bi ne yokk bi ëpp na ñu ne la guerre Ukraine bi. guerre Ukraine et souvent c' est des produits yoo xam ne jotewul dara ak guerre Ukraine. exactement looloo jaaxal ñu bëri. et c' est nag mu la laajoon ñu sentir un peu état bi. parce que le problème aujourd'hui bi bi bi tax situation économique bi gën a métti. Mm-hmm. c' est pas que état bi dafa waroon dindi subvention rek mu dugal ko ci. Mm. mais état bi dafa waroon xool aussi nan lay mën a liggéeyee. pour que yenn yi ñu beese ko soit ci jàmm wala par la parce que de toute façon bu ko deful yëpp ci kawam lay këpp sénégalais yi dinañ ci pâtir dinañ ci sonn mais au finish buñ meree aussi ci kawam la ñuy déverser mer bi mm. et un état aussi foofu lañ koy gën xaar mooy bu crise amee bu problème amee foofu la ñu war a gën a sentir ne ñun dans un état organisé lañ hmm. nekk. taxaw carrément xam ne yenn produit amul dara lu ko war a mën a yokk. wuy amul dara lu ko mën a yokk. mais contrôle et tout. aussi di anticiper ci yenn situation hmm. parce que boo yoree état. te denrée yi wàññeeku bi nga xam ci pénurie la jëm. te bu pénurie amee day yokk loolu yow war nga mën a am statistiques yi nga xam ko. Hmm. c'est comme si buñ toogee ba démb barke démb. ñu ne wuy ñaari cimenterie yi dañu arrêté fonctionner parce que euh, attanatuñ koo yi mm. c'est très problématique loolu lim nar a jur doy waar la su ko sim arrêté Dangote arrêté la production c'est c'est grave oui du point de vue de la production dafay grave mm-hmm. mais képp kuy liggéey ciment boo moytuwul da ngay dem soo je ne mm-hmm. parle même pas ñi nekk ci biir usines yi di fa liggéey et loolu foofu aussi l'État a laissé faire qu'est-ce qu'ils nee nañ clinclair bi dafa yokku et que ñoom attanatuñ prix yi alors que dans le passé clinclair bi wàccoon na ba yegg niveau boo xam ne ñoom taxuloon ñu wàññi seen prix yi mm-hmm. mais ça aussi c'est le fait de de en général les les capitalistes ñiy ut xaalis yooyu tant que bénéfice baa ngi bari duñ wax. Mm. mais bu bénéfice bi commencé wàññeeku ñu bëgg ko répercuter ci kaw nit ñi. Mm. foofu aussi soxla woon nañ fa régulation état bi. Mm. mais mais maintenant que état bi régulé wul bañ nekk ci situation bi mais na na état bi levé taxam yi amul le choix. loolu rek la mën a def taxe yim teg yim doon teg cimenterie yeeg yooyu. na xool lu mu ci mën a dindi ba ñoom ñu mën a fonctionner en attendant que jamono gën a neex jamono gën a neex oui loolu loolu lañ laa fi gis comme solution voilà beneen question d'actualité di euh, wàllum migration gis nañ ni ba léegi euh, xale yi bàyyiwuñ euh, émigration clandestine bi ban jàngat ngeen ci am ba léegi ñu ngi jaar si bateau yi récemment rek la ñu am ñu ñu arrêté si mbir moomule lan ngeen si xalaat yéen waa waa mm-hmm. utiliser nag ñun dañ koy bañ. mooy ban. immigration clandestine. loolu langage yi tubaab yi la. Hmm. ñun ñun moo bi ñu préféré mooy immigration irrégulière. irrégulière maanaam parce que. Hmm. xam nga journaliste yi ngeen doon. Hmm. yéen dangeen di forger opinion bi nan lay xalaatee ak lan lay comprendre. nañ jël cas bi nga joxe yow. nañ jël cas boobu. nee nga fan yii rek am na ñun ci jàpp. encore. ñiñ jàpp fan lañ leen jàppee ñu ngi leen jàppee ci bolong yi jifeer yi mm-hmm. ci biir au sénégalais yi mm-hmm. parce que ñooñ génnaguñ Sénégal mm-hmm. demaguñ fenn ñu tuddee leen ay émigré clandestin parce que presse bi yëpp loolu la wax mais génnaguñ sax seen réew nit mënta nekk sa biir réew nga xam da nga am droit circuler fi parce que loolu article 14 bu constitution bi moom moo ko maye am nañ droit circuler Sénégal sax ak bitim réew fu leen neex ñu dem implanté wu fa alors ñoom ñu ngi biir Sénégal am benn point buñ dajaloo ñu fekk leen fa jàpp leen fa et on les ñu leen di wooyee mm. ay immigrés clandestins et mm. toute la presse loolu la répété mais ce qui m'a plus choqué madame c'est pas le mot même mot bi choqué na ma mm. mais madame li ma gën choqué mooy la presse a repris que gendarmerie Sénégal ak la Guardia civile espagnole ñoom ñoo leen jàpp maanaam guardia civil espagnol <laughs> mooy équivalent gendarmerie nationale sénégalaise. exactement est-ce que imaginer nañ ay gendarme sénégalais dem ba biir Espagne di fa jàpp ay espagnol. Mm-hmm. loolu insulte loolu loolu loolu daanaka dañoo saaga suñ souveraineté. parce que gendarme yooyu nañ dem toog seen réew ñu xaar suñ doom yi bañ ñëw foofu buñ ñëwee mën nañ leen ne amu leen droit dugg fii. mais mënuñ leen di topp di leen topp. ba ci suñ biir réew ñun di leen fi arrêté loolu moom. lu jar a la loolu nguur gi def ko war a régler daar daar nañ fi génn te nag du foofu rek lañ leen dégg. dégg nañ leen. fan encore dégg nañ leen côté Gànjool. Mm. parce que foofu aussi on sait que. kon ñoom léegi toogatuñ di xaar seen frontière dañu fekk si ba suñuy frontière. toogat non du suñuy frontière sax dañoo dugg suñu réew. Mm. parce que euh, même géej gi def ci am partie géej gi loo xam ne ci Sénégal la bokk. Mm. maintenant boo ko génnee nga door a dugg ci géej gi nga xam ne international la ñëpp ñoo ko bokk mhm. kon tànk suñ doom yaa ngi suñ géej ñoom amul droit war leen fi fekk et li ko andi du dara lu dul accord yu lëndëm yi suñu réew yi am ak seeni réew parce que dafa dañoo am ak ñoom accord yoo xam ne daanaka def leen permettre lépp te la ik mooy dañ koy suñu réew yi dañ koy signer di ko làq te buñ koy làq c'est parce que am na ci loo xam ne jubul mais loolu moom accord ou pas accord question bu ñu war a régler la et dans les meilleurs délais nañ ñibbi seen réew. ñu dem garder seen réew. te xaar foofu parce que ñun réew yooyu sax xam nañ nan lañ leen tabaxee dans l'histoire mhm. parce que réew yu Europe yu bari émigration moo leen tabax dañ tukki woon pour ñëw mën a tabax seen réew aujourd'hui droit boobu moom lañ nekk di ñu bañal te émigré wax naa la ko droit la mu ngi ci déclaration universelle des droits de l'homme mm. moom moo wax ni nit kum neex mën nga fu la neex nga implanté wu muy sa biir réew di feneen yeneen texte wax ko suñ constitution wax ko mm. aujourd'hui droit boobu moom lañ ñuy bañal ñoom dañ koy def di violer texte internationaux yépp suñu réew yi topp leen ci mais de grâce presque bi bu ci topp parce que émigration bi moom mm-hmm. mënul nekk clandestine mën na nekk parce que nit mënul nekk clandestin mm-hmm. ñoom bu ñuy liggéey ak di bind ñoom ñooy utiliser terme yenn terme et sénégalais yeeg africain yi di ko reprendre mm-hmm. loolu mooy liñ ci liñ ci regretter mais aussi li ma la wax vraiment te aussi ak beneen parce que émigration lañ wax mais il faut ñu xool immigration bi mm-hmm. parce que Sénégal dafa nekk si daanaka un pays pétrolier et et, et gazier. Mm-hmm. loolu moo waral boo xoolee jamono yi président Europe yi di fi baagante. parce que mm-hmm. dañoo am si problème gaz ak mm-hmm. jafe-jafe yi ñu am. yaakaar gaz suñ diggante la ñun ak Mauritanie. loolu moo tax ñuy def va-et-vient Sénégal alors loolu li muy jur mooy de manière apparente. ci li leer nit ñi di ko teg bët mooy dañuy gis autorité sàngam ñëw na fii président sàngam ñëw na fi mais derrière dafay bari seen doomi réew yoo xam ne aussi dañuy ñëw fii mm-hmm. parce que dëkk bu tolloo foofu dafay offrir liggéey liggéey def fay bari mm-hmm. da fay mën a dem nga investir ci tel et tel domaine mu oom et ainsi de suite donc ñun war nañoo yegg sax foo xam ne ci visa ak yooyu dañ cee war a appliquer réciprocité. defoon nañ ko fi dindi ko. mais dañ ko defoon mu échoué tourisme bi dee carrément. non échoué wu loon. destination Sénégal bi amatul woon gisatul woon kenn. c'est vrai dafa ba léegi sax. lu la aussi parce que fois boo jëlee yenn mesures yi. mën na am dans l'immédiat benn impact c'est pas parce que dafay dem am impact boobu ko nga lever ko de toute façon suñu frontières yi réew yi il n'est pas question ñu bàyyi ko mu continuer na mu meloon mm. mooy kum neex nga ñëw dugg parce que dañ nekk si euh, aujourd'hui un pays à enjeu mm. pays boo xam ne am na pétrole am na pétrole am gaz képp koo ko tudd ci àdduna bi xam mm. ko ñëpp di ko wër ku ne di ut investir fi mais il faut ñu xool gën a xool ñan ñooy dugg fii ak ñan ñooy génn c'est un peu ça et li valable woon deux ans trois ans valable mën na bañ a valable tey parce que géopolitique mondiale bi dafa am nu muy doxee. gis nga visa bi mën na euh, lijjanti mbir mi. Mm. surtout wàllum immigration irrégulière. oui maanaam bépp réew boo xam ne doomu sénégalais ba daf fay dem ñu laaj ko visa ñun tamit boo fiy dugg ñu ne la ana sa visa. oui ñu ñu ñu laaj la visa. parce que ñun am na réew Afrique yoo xam bu fay dem dañuy fay visa et pourtant fii biir Afrique lañ nekk kon loolu du problème entre ñun ak yeneen réew yu Europe yi ñuy laaj visa pour que ñu laaj leen ko. c'est même c'est d'ailleurs même ci équité logique rek nanguwul loolu logique nanguwul ñoom fu ñu bëgg a dem jël seen passeport jubal dem fa. Mhm, jënd billet ñëw dem. ñun fu ñu bëgg a dem c'est des tracasseries. ñu teg yoo xam ne. <laughs> vraiment inacceptable. Mhm. du du intellectuel ba du du kenn. comme ci doon dinañ la def loola pied de grue ran loola dem loola ñëw loola bind loola mel. sonal la sonal yoo xam ne. ba mu da ngay découragé sax. daanaka du ko jar. parce que à la limite boo ko xoolee dadul am respect ñun nag ñooy def li tax respecté wuñ ñu. Mm-hmm. te la à la vérité mooy et aussi baax nañu liggéey ci mooy puisque am nañ réew moo xam ne am si na yaakaar lañ am. te baax na ñu xool nan la ñuy def bi xale yi mën fee toog mm-hmm. moo gën ay vague yoo xam ne chaque semaine nga dégg vague bi jéem na dem mm-hmm. alors que Europe ay nit ñu ngi fay jóge di jéem a ñëw fii di xool nu ñuy def te ñoom tamit crise ba sonal na leen crise bi leen sonal la mm-hmm. et de plus en plus ñu ngi ñëw di ut si liggéey fii donc am na lu ñu ci war a xoolaat ci gouvernance bi mais côté migration moom gouvernance bi dafa des dafa des trop trop trop trop beneen problème euh, Senghane Senghor pratiquement réew mi sax danga naan dara doxul ñu nekk si jamonoy nawet euh, gis nga jafe-jafe yi nga xam ne capital bi mi ngi koy dund euh, su tawee pratiquement tout est bloqué ñu dugaloon si milliards yu baree bari ci wàllum assainissement ci wàllum xeex inondation actuellement ñi nekk fii Dakar wala un peu Sénégal gisuñ seen bopp jàpp nañ ne xaalis bi ñu wax dugal nañ ko ci dugaluñ ko ci yéen waa Euh, Rado est-ce que da ngeen bokk si ñu naan dañu càmbar milliards yu bëri yi est-ce que def nañ ko ci wàllum lutte contre les inondations est-ce que def nañ ko si assainissement est-ce que euh, ñi gagné marché bi def nañ liggéey bi normalement waaw wala déet da ngeen see bokk ñuy laaj wàllum audit wala. waaw madame pour être mm-hmm. yi may joxe yu officiel la mm-hmm. sept cent soixante six milliards moom la ñu wax def nañ ko diggante deux mille douze ak deux mille vingt deux mm-hmm. ci assainissement sept cent soixante six milliards. si foo xam ne caniveau ba amu fi. voilà et et loolu moom la sénégalais yi ne ñoom yëguñ ko seen dund gisuñ ko. Mm-hmm. muy lu légitime. parce que dafa mel ni problème yañ doon dund moom lañ continuer di dund mais xam nga Sénégal lu tax muy problème yooyu du fi jóg Sénégal dafa am ay jafe-jafe ci ci ci yii domaine. Mm-hmm. gis nga domaine yi audit. Mm-hmm. Sénégal daf ci am problème bu ñu war a régler. évaluation Sénégal def ci am problème bu ñu war a parce que bu ñoom bu ñu jëlee xaalis bu bari dugal ko fenn le plus souvent après ñoom ñooy tànn seeni auditeur mm-hmm. ñu ñëw ñoom ñooy def seeni rapport mm-hmm. et rapport yi seen diggante lay yem yow boo ko soxlaa gis mënuloo ko ko sax yëpp bu ñu defee évaluation même sos même booy liggéey soxla ko sax pour nga jot ci problème la et et loolu bu fekkee lépp ci seen biir la mën a yem xaalis bi génn ñoom ñu gérer ko seen biir audit bi seen biir évaluation bi seen biir beneen programme buy ñëw encore seen biir mm-hmm. du sotti du sotti parce que gouvernance mooy transparence moo nekk ci centre bi mm-hmm. am ci solo lool parce que transparence bu amul rek gouvernance mënul baax parce que fépp fu lëndëm nekk mm-hmm. am na yu ñu fay nëbb ak yu ñu fay làq yoo xam ne bugguñ mu feer mu feeñ et lenn moo koy régler mooy lumière et loolu dafa mel ni ñoom doxuñ jëm ci côté boobu kon ñun li ñu war a gën a liggéey loolu ci la bokk moo tax man assemblée bu bees bii mm-hmm. war a installer lundi man li may xaar ci ñoom et boobu loi laa bëgg ñu njëkk a régler Sénégal mooy la loi sur l'accès à l'information buñ ko réglé woon dinañ réglé cinquante pour cent problème bi ñu am Sénégal. Mhm. mooy loi boo xam ne dafay may bépp sénégalais information yi nga war a jot te bëgg ko jot. Mhm. nga mën a dem laaj ko ñu jox la ko. loolu bu amoon. soit ñu jox la ko wala boo ko soxlaa dem ñu jox la ko. waaw soit ñu jox la ko wala yow boo ko soxlaa nga dem ñu jox la ko même dans certains cas bu dee à tes frais la. Mhm. mooy par exemple dangay dem ñu ne la. rapport baa ngi nii boo ko mënee photocopier nga photocopier ko. Mhm. mais loolu bu amoon dana régle lu bari ci problème bi. parce que dana tax képp ku ciy defati di nga calculer ne man kat li may def nii mën naa génn suba dans la place publique def lay leer sax ne day génn. Mhm. na yombal seen liggéey yéen. Mhm. yombal suñu liggéey yombal liggéeyi ñeneen ñi. kon loolu en tout cas premier point man bu ma amoon buñ ma ne woon choisir loi boo xam ne assemblée bi. boobu lay njëkk a lijjanti boobu ci lay nekk te société civile bi ñàkkut koo wax état bi société civile bi liggéeyoon na ci luwaam depuis 2009 mm-hmm. état baa ngi ko yor ñu ngi ko def ci seen tiroir yi saa bu leen neexee rek ñu génnee ko tàngal ko mm-hmm. organiser ci quelques ateliers fooxal nit ñi bañ yaakaar léegi mu dem conseil de ministre dem assemblée ñu dugalaat ko ci tiroir yi tëj ko parce que peut-être dañoo gis njëriñ ci continuer ci situation bi mais situation bi ñu kon bi ñuy nekk nii gënut ci Sénégal jàpp naa ne sax même ñoom gënul ci ñoom parce que à la longue aussi dafay daanu seen kaw luy répercuté wu seen kow lay nekk kon pour revenir à inondation yi hmm. dégg naa plan décennal bu ñuy waajaat encore beneen plan bu bees beneen bu sans compter orsec bi fi nekk voilà sans compter <laughs> orsec bi parce que orsec moom daanaka liñ koy déclenché du jeex te moom <laughs> aussi très souvent gouffre à milliards la ko ñenn ñi tuddee parce que te loolu yëpp aussi li koy waral mooy droit à la participation population yi moom lañ ci dul moom lañ dul respecté respecté ko mooy associé leen ci lépp lu ñuy def ñuy xool di xam ne lii coût yi lii la lii lii la jar lii lii la demee lii fii la dugg parce que buñ ko doon def bel mu leer seen bopp xëy na ku leen accuser yenn yi ñu mën koo miin mm-hmm. voilà dernière question Senghane Senghor xam naa euh, dañuy euh, juste deux minutes génn euh, Sénégal dem ca Guinée euh, foofu tamit mbir mi soxal na ñi yëngatu ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama ak coup d'état ba fa amoon euh, xam nga Doumbouya toog Alpha Condé mi doon forcé troisième mandat am troisième mandat quelque temps après coup d'état am fa mais actuellement daal lay xeeñ ca Guinée ñëpp dañu jàpp ni dictature la yéen lan lan ngeen xalaat ci situation bi am Guinée. non dictature la cest à que ñun. Mhm. dans le principe ñun ci suñuy suñuy façon yi liggéey ñun nanguwuñ coup d'état mhm. parce que coup gisuñ ci benn coup d'état laa wax de mhm. benn boo xam ne exemple bu ñu war a roy la ci monde bi parce que coup d'état yëpp benn système la ñuy fonctionner au début dañuy ñëw yokk yaakaari nit ñi ensuite dañuy verser ci populisme di jàpp ay date di repousser ba finalement ba ñuy installé wu confortablement ensuite guerre bi day nekk entre ñoom ak seen entourage et maintenant la dictature s'installe noonu la demee fépp mm. Guinée aussi noonu la fay demee nous la dit di tôt Mali ba fa amee on l'a attaqué def ci ay communiqué wax liñ ci wax gine aussi wax nañ ko ca et kaawu Guinée Mali sax moo ko tane parce que au moins Mali ñu ngi engagé wu ci ay date mais Guinée même date sax nga munul am ci ci ci ci ci yi boo xam ne mën nga cee sukkandiku et finalement fi muy mujj mooy ci problème parce que ni ñu gisee yëf yi di doxee population bi dañuy aspirer à la liberté à la démocratie boo xam ne loolu lañ mos d'ailleurs di xeex parce que moom lañ doon xeexee xeex contre Alpha Condé ba li ci nit yëpp dee fa. Mhm. Alpha Condé gis nga ko moo tax niti nguur très souvent bu ñuy wut nguur baax na ñu ciy jiital xel. Mhm. demeewu ci woon xel sago la ci demee woon topp partenaire am yeeg ñi ko doon buux. ba mhm. gis nga fa mu mujj. aujourd'hui situation bi mu mujj gënul bi mu dugal gine gënul. et et yooyu. c'est c'est des cas yoo xam ne moo tax société civile sous sous régional bi dafay liggéey fi mu ne pour que ci biir sous région bi yëpp ñu limité fi mandat yi à deux mooy buñ waxuma jéem mais buñ déggati sax kuy wax waxi troisième mandat et ironie du sort mm -hmm. parti Alpha Condé bi nga xam ne moom moo doon jàppale Alpha Condé pour troisième mandat jàkkaarloog opposants yi aujourd'hui moom moo rejoindre camp yi opposants yi pour ñu xeex contre militaires yi mhm. exemple bu bu emblématique la bu wone un daanaka les hommes politiques la ñu ci bari jëmuñ fenn. jëmuñ et que ñeneen ñoo war boog di calculer di xool un intéret intérêt état yi di ci attirer seen attention parce que. Mm-hmm. ma fàttali et ça jar na fàttali pour ñenn ñi. dëkk bu am société civile bu dëkk société civile bu bu dëgër def fa baax moom lay wax Guinée yi. Mm-hmm. ma leen di wax seen problème mooy. seen société civile bi. elle est politisée elle est politisée même. Mhm. koo fa fekk gis de mu ne la société civile laa aussi. ñoom ñu si ëpp boo gasee ba ci biir dangay xam ne soit malenke yi la àndal wala ñële la àndal. Mhm. et souvent bu wax yenn yi jotee du ko wax def ci xaw a ànd ak far. parce que société ci ci ci ci mooy lan ci définition. ni réew mi ñoree police ñiy def politique la ñu ñoree wala ñim nim ñu ñoree sax ñoreewu leen ko ñoom. Mm. mais suñ différence mooy ñoom dañuy xëccoo pour jot nguur exercer ko ñun xëccoo pour jot nguur exercer ko mais nag ku fi nekk danañ xool li ngay def boo bëggee def lu dul noonu ñu ne la du nii. bu laajee jàkkaarloog yow ak au population yi ñu woo leen ñu jàkkaarloo ak yow. voilà moom. Senghane Senghor waxtu bi dab nañu ma bàyyi la nga tàggoog euh, auditeurs yi. waaw xanaa di la di la remercier rek di la di la gërëm ci invitation bi di la andi nuyoo aussi waa waa RADDHO euh, yaa ngi ñuy sànni xeer mais euh, euh, baal nañ la te <laughs> yow moom dispo nga xanaa kii lañuy sànni xeer Sadikh Niass moom faaw ñu sànni ko xeer tuuti waaw mu gën a disponible di di di di tàggatoo aussi ak sa auditeurs yi di leen wax ni ah lu ci jub ci ci yàlla la mais lu ci dëng xëy na ci ñun la muñ ci heurté nit aussi du luñ ci jublu woon jubal ak wax lu baax ci Sénégal rek moo ñu taxoon jóg mm-hmm. di leen remercier merci beaucoup merci beaucoup euh, Senghane Senghor pour la disponibilité Senghane Senghor nekk chargé des affaires juridiques et de la protection euh, ca RADDHO di kuréel gu yëngatu ci wàllum àq ak yelleefu euh, doomu aadama kon ñu ngi koy remercier bu baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures ak Mamadou Diaw jallo bi nekkoon ci cabine technique bi ba samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa jëf